ak ragal la ak weg la da nga mucc ci mom da la mëna def dara bokku la ci ni bismillahir rahmanir rahim su amé ku tawat nga def bis bu ne nga jangal ko téeméeri bismillahir rahmanir rahim ba muy ñetti fan ya dindi tawat jojé boo bëgg xam ne waxtu bi jant bi fenk da ngay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 bokk na ci jàngale bismillahi rahmaani rahim soo yëgee mu ngi taw nga daal jàng bismillahi rahmaani rahim juróom benn fukki yoon ak benn te yéena ca yàlla saafaraal la sa jàngoro kon yàlla dal lay saafaraal jàngoro joojee ca bis boobee loolu day jàppandi la te bari njëriñ mooy nga saxal bis bu ne suba ngoon nga wax bismillahi rahmaani rahim fukk ak juróom-ñeent maanaam wax ko daal ñaar fukki yoon yu manqué benn saxoo ko nag suba ngoon soo ko defee seytaan du mën a am ci yow aw yoon te yàlla da lay musul ci xeeti fitna yeeg balaa yeeg xeeti laago yeeg lu ngeen di suuf yeeg mboolem yooyu ñu ragal may la ñu weg la sànn ci yow cofeel ba nga xam ko la gis dëgg la mu ne ku bind bismillahi rahmaani rahim fanweeri yoon ak juróom takk ko ci néegam néeg ba saytaane du ca dugg jinne du ca dugg te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 ibnul xaaj andi na ca téeram bale soo bindee bismillahi rahmaani rahim téeméer yoon ak fukk ak ñeent daldi koy takk mbaa nga seet lu mel ne kalpe mbaa porte-monnaie boo xam ne du faral tàggoog moom nga def ko ca biir ferme ko di ko yore rek saa nekk yàlla day faj mboolem say aaju may la it waroom doole yi ñene yàlla dañu lay wet duñ la ñene bay dal ci sa kaw amu amul menn mbindeef sax ci mbindeef yàlla yi mu la mën a lor li sa yàngee këyit woowu takk ko rek yàlla moo lay sàmm ak sa soxna ak say doom ak sa alal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 danaa ko musal ci tiit mu rëy moom nga xam mom la nit ñi tit te bis pencek nga ci aju wat na ni dana ko yombalal na muy taseeg man ba bu ñew ci man day ànd ak ñama xewale sama ngeerum te ma yonante yi ak ya lay bu ci man ko rahim dagati araf yi nga bind ba mu daru bind siin mu daru bind miim mu daru ñu bañ a taqaloo ba bismillahi rahim ji àgg nga takk ko nag ko def day neena na yàlla defal la ngëneel lu rëy rëy lu ëpp ne baa joor boobu soo ko bindee noonu ba muy ñaar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 rek suku bende bindee kion fukki yoon dal di koy da di am aw yiw bare bare bari yalla fegal la lepp lépp lu ñu sib manam lépp lu ñu taabuut musal la ca mu ne arrahman rahman boobu nee ko saxo di jang dindi junni yoon gannaaw boo jullee farata ba nopi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 loolu ku saxoo batu arrahman rek di ko di junni woon saa yoo jullee ji farata ba sëlmal te saxoo ko ba muy fukki fan ñeent yàlla defal la loolu dafa mujjee baat bi ci mujj arrahim mu ne arrahim day soo ko bindee limut ñetti téeméer yu manqué benn dal di koy takk kon day dund ngànnaay maanaam amul lenn ngànnaay loo xam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 تواجهي بسم الله الرحمن الرحيم